que dañuy licence yi su fekkee da ngay nappi ca biir Mauritanie am na xeetu jën doo ko jàpp boo ko jàppee boo ñëwee mën nañ def ay pénalité pénalité yooyu nag moo yéeg ba jéggi dayo xale yi ni mu ñu ko fay Mauritanie delloo seen licence bi ñu demee géej ñëw lu mat cinq euh, cent gaal kenn amu ci jën xale yi de manière improvisée bëgg a def benn marche pacifique mais je sais dañ leen infiltrer ba mu dégénérer mais li may wax ci loolu yëpp amul solo li may wax rek mooy na acteurs yi toogaat nañu xool président Macky Sall ndax problème bi du woon rek licence bi xam nga dañu waxoon brèche bi mu ngi rey nit ñi dañu waxoon géej gi mi ngi avancé mi ngi jeexal dëkk bi dañu waxoon dañuy draguer fleuve bi yooyu yëpp man boo gisee ma dem jàppale ji président Macky Sall loolu ci promesse yi nga xamante ni dañ ko defoon ci campagne pour régler ko licence yi ñu ngi ci nañu gaaw ci géej gi nañu gaaw ci euh, amoussure bi mais surtout licence ñu teg cadre boo xam ne lii dafay jeex fii bu at mi jeexee bu ñu 500 millions la ñu war fën Mauritanie que l'État se charge de dire que ok amu leen xaalis danaa fay mais pendant ce temps ci biir liggéey bi vous allez rembourser wala mu xool pendant ce temps nan lay defee subvention comme il l'a fait avec les moteurs que nous saluons mais dañu très sérieux vous savez la Langue de Barbarie et la zone de pêche c'est plus de 300 000 habitants xam taux de densité humaine bu c'est ingérable donc vraiment damay demander solennellement au chef de l'État à son gouvernement que sur la question des licences de pêche et les problèmes liés à moussure, à l'avancée de la mer ak euh, déragage yu dex bi mu nekk lu ñu lu ñu lu ñu jàpp xoolaatam gendar nu ñu koy éclater nañ ñuy jox ay terrain ñi ñi dem dëkki bu ñu amee benn cinq cent millions di ko def ci budget pêche chaque année problème licence dootul am ndax des fois lii indi problème bi mooy lenteur de paiement yi lii indi problème bi mooy nga dem bay fay ñu la da ciy teg lii ak lale su fekkee état couvrir na lépp ba jàmm am état mun na retourner wat ci acteurs yi waxtaan ak ñoom lii kat da ngeen koy rembourser wala lii kat dañ ngeen ko may defe naa loolu dama koy demander politique ay bu ma janoog moom incha allah loolu danaa ko teg ci taabal ji waxtaan ko ak moom parce que ma bëggatuma daal gis seen i xew dem maanaam vraiment démb ba léegi mun naa wax ni lekkuma parce que samay jarbaat samay doom ñoo nekk ci biir donc ku dee ci bël ba sama doom nga wala sama jarbaat ku bugg a liggéey amoo loo liggéey sama doom nga wala sama jarbaat donc euh, effectivement il y a eu plusieurs bari na ay arrestation waxtaan naa ci léegi ak ministre de l'intérieur daañu continué waxtaan pour xool vraiment lu ñuy décanter situation mu seddagu yi